wa rahmatullah sëriñ bi noo ngi lay ziyaara euh, gouverneur noo ngi lay nuyu ak mbooleem ñi nga bokkal liggéey bi ci jottali kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci sëñ Abdou Fatah bi yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko li sëriñ bi jot a wax nag wax moom mën naa yàgg waaye dégg am na fu muy yem dafa mel ne bés bi jar na mat naa jar na te mat naa waajal léeg-léeg mbir jar ko te du ko mat léeg-léeg mu mat ko te du ko jar waaye yar yëpp suñu boroom dajale na ko ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajalal euh, Sëriñ Faliilu Mbàkke ndax bu ñu ko seetloo xóotal ko mel na ne yaar daje na ci yaari mbir mel ni mbir mi mooy wàllu diine ñi nga xam ne diine rekk moom lañuy ñuy xeñtu fu ñu ko dégg wutali fa lii sëriñ bi jëkk a jot li na lépp ak geneen wet goo xam ne wàllu société lañ koy tudde sëñ Fallu mi nga xam ne moom la ñuy waajaral bisam e, ñaar yëpp la dajale woon di ko dund ba yaar yooyu ku ci féete woon yëgoon nga sa wàll wala sëñ Fallu sedd ci boppam mas naa taxaw fii ne moom mooy Sénégal Sénégal nag yaar yi nga xam ne moom lañ koy gën a xàmmee ba foo ko gis sam xel na yarta ci Sénégal ndax miin nga ko ci dégg mooy garab gi ñuy wax guy ak gaynde guy ku ne xam na ne lépp njariñ la ndax des na jël xàncam ya defar ci ay buum ñun ñu dëkk ci kaw gi xam nañ njariñam bu baax di ci yeewu sunub jur di ci root di ci yeew it kuñ ci bëgg luñ ci bëgg a yeew luñ ci bëgg a yeew waxuma kuñ ci bëgg a luñ ci bëgg a yeew waaye guy itam wuyam ba boo ko tojee da ca fekk buy eh, ku xam laaxu notari xam ngeen ne buy du ko wuute waaye kerem gi it ku ne ci àll bi liggéey mënu ko ñàkk ndax kàdd mi gën a am yaakaar ci ker ci àll bi moom du taseeg ab taw fenn bu koy gis rek daal di jëri waaye su boobaa nag guy mooy jël relais bi su jàmbaar nekkee ci waar yu ba sonn mu ne ko dallu ci sama ker gi jógaat dellu ca waar wa daana fajal nit aw mar ndax nit toog na ba tey ndoxum toolam jeex xamut fi muy jëm xel na yar ci lëm mu na ci guy mu yéegloo ca ku sawar root ca def lam ca bëgg def lépp ci ndox kon guy ku ko jël ne man Sénégal laa te Sénégal guy bokk ci njariñi kese nga société mun la ñàkk waaye gaynde it ñiy demal Sénégal ci feneen sax di xëccoo ji tur boobu lañ leen di wooyee gaynde ku ne xam na ngorom ndax xam na li tax yàlla bind ko xam na lim ko sédde gaynde du xiif mukk ba xelam dem ci fortaatu am ñax di ko lekk waaye day toog xaar yàlla rek ba lu yomb romb ko ndax man gis naa ko ku tayal la sa warewut du dem di wuti waaye day toog di xaar yàlla ndax diisaay bee tax ni ko yàlla binde mu xam ko yëg ko te tiitarowu ko waaye day nag ba lu romb romb ko rek mu dox na na ñaadam ñaadam jàpp ko jariñu sa bàyyil ko fa ñeneen du ko du ko denc mukk jëmale bu gën xam ko ndax munti yëg bay denc waaye su si jariñoo ba noppi xam na ni am am lañu wax saa amee lu la ëpp wàllu keneen na nga mu bàyyil ko fa ñeneen kon ku gore la koo xam ne du sonn ba tax ko wuti wutin woo xam ne gënal gënut waaye it du tooñ du tooñ kenn am na ko dëkk boo rek wetu Kédougou nee na ma kum mu jëflanteel rek kookaa ko bëgg a jaar sàkk te moo yaay nag su ko defee kon ku jël màndargam guy laa ak gaynde laa wax dëgg yàlla société bi mënu laa ñàkk ndax société bi mënut a ñàkk jàng saa su nekk ana nu ñuy jànge ngor nu ñuy jànge doylu nu ñuy jànge xam sa bopp waaye ni ñuy jànge jariñ nit ñi it te bàyyi leen ak lañ yow loolu bis bi làmboo ko kon sëriñ bi sëriñ Abdou Fatah mu ngi ci woo jullit yëpp ñu bokk ñëw taataanandoo ci njariñ yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi ëmb ci biiram di woo mbooleem jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ak waa réew mi ak fu ñu fi mën a nekk euh, bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn rawati ca nag ñi nga xam ne moom dañoo nekk ci biir réew mi te kenn ku ci nekk ni ko mbokk mi waxe léegi Sëriñ Fallu doon na dund ak ñaari nit ñaari xaaji nit benn xaaj bi njariñ lam leen amaloon taxoon na ñu yàgg koo ñaanal mu yàgg fi bañ mën koo fay ndax ay gor lañ gor day fay waaye beneen xaaj bi it ñoom euh, tooñu ma leen waaye dañ ne woon yàcc rek di ñaan mu yàgg fi ba yàgg leen a jariñ ñaar ñooñee nag seeni ñaan nangu na ndax suñ fallu jógu fi ñoom ñëpp nag ku ci nekk it am na njaboot kaar-kaar ba kenn ku ci nekk gëm na ni am na bor bu mu amee suñ fallu ni ko mbokk mee waxee léegi kon nag sëriñ bi nee na ku mas a jàpp ne séq nga sëñ Fallu wala sa mbokk séq ak moom mu ngi lay ñaan nga jokk kóllëre googu wuy si ko ci bis bi nga xam ne dañ ciy jàngat dund ko sëñ Fallu gu barkeel ga waaye ñi nga xam ne it ñoom la fi e, monsieur le gouverneur toogal mu ngi koy ñaan it fu mu war a àgg mu àggale ko fa xamal leen ne it ñoom it njëriñul sëñ Fallu mënu leen a teggi te mi ngi toog di xaar li koy xamal ku ñëw ak ku ñëwut daal mooy la muy séddale ma nga nag mu teg ne saa bu xoolee seen mu nekk fa mu xam ne diw ñëwagut bu xoolee mu nekk mu jógee fa nag mu xam ne diw fa mu ko tegoon la mu ko joxoon jël na ko ba dem waaye dana dana jafe ci moom loolu nag ku ñëwut mu di la yóbbante naan joxal ma kee ndax euh, cërub xejj xooj gi da koo jël saa su nekk mu ngi leen di fàttale waale it euh, màggalu doomam ju baax jooju wala ji baara moom itam yàlla boole leen mbir euh, moom it dugg na ci biir loolu ndax diir bi mu fi nekk lim gàtt gàtt euh, lim fi jariñ ci aw kenn xamul ni mu toll te néew na ku ne maa ko defal nangam lu mu mëntoon a am sëñ bi di dellu di ñaan ñii ñëw ñëpp yàlla na leen yàlla indi ci jàmm delloo leen ci jàmm euh, code boobu ñuy wax naan code sëñ fallu ku ñuy wax sëñ aafe mbay moom la ko sëñ fallu waxoon euh, ba mu amee li ñuy wax brevet moo jiitu permis de conduire daa ñëw wan ko ko ne ñi ma doon euh, gëstu boo xam man na maa dawalam de dañoo ma ko jox mu ne ko ma seet mu jox ko ko mu xool lañ ci bind lépp ne ko waaw yow de jàmbaar nga ndax wóolu nañ la waaye xaaral ma dolli la loo xam ne xëy na bëggoon nañ la ko wax te mënuñ la ko wax nii la ma nii ma la koy wax ne ko sooy dawal wata da naan déj du duju toogaay bu dëgër ne nikk jàkk ne nikk ak say loxo say yoxo loxo mooy benn waaye yoxo mooy ñaar ne jàkk fi nga jëm Eh, bu ne taj nga ne teg bu ne yang nga ne yow boo ne yow ba jub ab lunk-lunk mooy ab virage nga tegg sa tànk te màcc ci sa wetu ndeyjoor boo ko génnee ba mu jeex takk mën ngaa dellu ca la nga nekkoon ku la ne piip ci ginnaaw maag yow ko man ne ko yow bàyyi ko mu jàll <laughs> am ñu wax ne daw ndànk dal ndànk waaye koy daw ndànk du dal ci kaw dara yàlla yàlla indi ñëpp ci jàmm delloo leen ci jàmm bis bi nag nit ñi ñoo ko gën a yàkkamti ñi nga xam ne ñoo koy taxawe ndax bu gàmmu jàllee xew wi jëkk amat ci Touba te mu doon xew wuy jógloo ñëpp mooy Kazu Rajab bu ñuy gàmm rek tàmbali lañ kañ la Kazu Rajab moom daal xam naa la ci waaye ñu bari xam nañ la ci nekk daa mel daal dañ ko yàkkaliw faw ñu xam ne it euh, bis bi ñu ko jàpp da ciy baax ndax kuy waaj xam bis booy dem fukki fan ak ñett ci weeru avril bii di ñëw lañu ko jàpp yàlla nañu ko yàlla fekkeloo dañu romb ko te daje ci ak ngërëmul sëriñ bi te kenn ku ci nekk bu ñëwee ba dellu it xam ne ñëwoon na Kazu Rajab kaddu yooyu daal la sëriñ bi waxoon ma jottali ko lottu naa ci nag waaye ndigal moom soo mënee defal soo mënul jël